Luk sar at ak juróom ci nguuru tibeer sesaar fekk pons pilaat yilif diwaanu yude erod yilif diwaanu galile filip magam yilif diwaanu iture ak butrakonit te lisañaas yilif abilen te it anaas ak kayif nekkoon saraxalekat yu mag ya ca jamono jooja la kàddug yàlla wàcc ci yaxya doomu sakariya ca màndiŋ ma yaxya daldi dugg àll bi wër dexu yordaan gépp di waare nii tuub leen seeni bàkkaar ba noppi ma soob leen ci ndox ngir yàlla baal leen seeni bàkkaar loolu lañu bind ci téere wax yonent yàlla esaayi naan am na baat buy xaaju ca màndiŋ ma ne xàll yoonu borom bi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 mbooloo ma laaj ko ne lan lanu war a def nag mu ne leen ku am ñaari mbubb nga jox menn mi ki amul ku am ñam itam nga bokk ko ak ki amul ay juutikat itam ñëw ca Yaxya ngir mu sóob leen ci ndox ñu ne ko kilifa gi lu nu war a def mu tontu leen ne laaj leen rekk lu jaadu ay xarekat laaj nañu ko ne li jëm ci ñun nag mu ne leen bu leen néewal doole kenn jël xaalisam ci kaw ay tëkku mbaa ci seede lu dul dëgg waaye doyloo leen li ñu leen di fey mbooloo maa ngiy xaar di seen tookal laaj ci seen xel ndax Yaxya mooy almasi bi noonu Yaxya tontu leen ñoom ñépp ne man maa ngi leen di soob ci ndox waaye kii ma ëpp kàttan dina ñëw te yeewuma tekki ay dàllam kooku dina leen soob ci xel mu sell mi ak safara layoom mu ngi ci loxoom ngir jëri dàgg ja ba mu set pepp ma dina ko def ca sàqam waaye xatax ba dina ko lakk ci safara su dul fey mukk noonu Yaxya teg ca yeneen dénkaane yu bari di yégal nit ñi xabaar bu baax ba waaye Yaxya yedd na Erod boroom diwaanu Galile ndaxte dafa takkoon Erodiyaad jabaru magam te it boole woon na ci yeneen ñaawteef ba faf tëj Yaxya kaso noonu Yaxya sóob mbooloo mépp ci ndox soobaale it yéesu bi yeesu di ñaan nag asamaan daldi ubbiku noonu xel mu sell mi daldi wàcc ci moom yor jëmmu pitax te baat bu jóge asamaan jib ne yaa di sama doom ji ma bëgg ci yow laa ame bànneex bi yeesu di tàmbali liggéeyam amoon na lu war a tollu ci fanweeri at di doomu yusufa ci bëti nit ñi te yusufa mooy doomu eli mi doomu mataat mataat lewi mooy baayam lewi melki melki yanayi yanayi yusufa yusufa matatyas amos naxum esli nagayi nagayi maat matatyas semeyin yosek yoda yoda yowanan mooy baayam yowanan resa resa sorobabel kooku salacel a ko jur salacel neeri neeri melki addi kosam elmadam er er yeesu eliyeser yorim mataat lewi simeyon yuda yusufa yonam eliakim eliakim meleya meleya mena mena matata matata natan natan daawuda daawuda mooy doomu yese yese obed bowaas salmon nason nason aminadaab aminadaab admin arni esrom fares yuda yanqoba isaaxa ibrahima taara nakor seluk ragaaw falek eber sala sala kaynam mooy baayam kaynam arfaksaad arfaksaad sem sem nooyin nooyin lamek lamek matasula enok yared maleleel kaynam enos seet seet doomu aadama aadama doomu yàlla